Ousmane Sonko mu sell mi le combat mortel bi nga nekk di woote combat man ak yow la yow nga ne yeewi askan bi Ousmane yeewi ma balaa nga yeewu keneen après ñu àndandoo man ak yow yeewi askan bi yeewi askan bi ci otage bi nga leen jàpp yeewi askan li nga yeewi askan bi ci li nekk di ante seen passé nga yeewi askan bi ci li nga xamante ne ñoom seen doom yi ci lañ tey seen quatorze doom ci lañ tey ñu mën a xam si seen doom yi au moins ci lañ tey seen doom yi mën a reposer en paix yàlla leen yàlla xare aljanna Ousmane kañ ngay arrêté kañ ngay bàyyi nga ne kenn du la tëj ça on verra bu fekkee yow yaay président de la république bu fekkee ne yow yaay justice justice Sénégal yow la bu fekkee ne loolu la yow yaay yow yaay dicteur justice Sénégal ça on le verra kenn du la tëj bo ba ba da ngay dem suite ba te violé def lu leen neex juutal ay xale yu ndaw tëddee leen def lu leen neex ne kenn du la tëj on verra Ousmane Sonko bu fekkee ne duñ la tëj on verra. Ousmane Sonko mu sell mi le combat bi nga nekk di woote combat man ak yow la yow nga ne yeewi askan bi Ousmane yeewi ma balaa nga yeewu keneen après ñu àndandoo man ak yow yeewi askan bi yeewi askan bi ci otage bi nga leen jàpp yeewi askan bi li nga yeewi askan bi ci li nekk di ante seen passé nga yeewi askan bi ci li nga xamante ne ñoom seen doom yi ci lañ tey seen quatorze doom ci lañ tey ñu mën a xam si seen doom yi au moins ci lañ seen doom yi mën a reposer en paix yàlla leen yàlla xare àjjana Ousmane kañ ngay arrêté kañ ngay bàyyi nga ne kenn du la tëj ça on verra bu fekkee yow yaay président de la bu fekkee ne yow yaay justice justice Sénégal yow la bu fekkee ne loolu la yow yaay yow yaay dicteur justice Sénégal ça on le verra kenn du la tëj ba ba ba da ngay dem suite ba te violé def lu leen neex juutal ay xale yu ndaw tëddee leen def lu leen neex ne kenn du la tëj on verra Ousmane Sonko bu fekkee ne duñ la tëj on verra.